jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mu nekkoon ci jataay bi almisbaax ñaanal ko tawfiix suturaak teraanga ak poche def dara wa kullu amin wa antum bi xayr tabaarakallaahu buñ masaana toll fii waxtaan ci muddi koor yi ba noppi dañ ci daan teg nag julli korite waxtaane julli korite waaw mooy sunu tomb waxtaan tey incha allah ak ëllëg xëy na waxtaane julli korite julli korite sunna la alayhi salaatu salaam moo ko sunnaal moo ko sunnaal ca at mu njëkk ma ca gàddaay ga bu ñu ne at mu njëkk ma ca gàddaay gi mooy at mam ñëwee mam ñëwee madina ca déwénu sa la tëral azaka mu waaye ca at moomu ci la tëral julli korite julli korite doon lu am solo moom daana ko def daana digal ji góor ña ñu def ko daana digal jigéen ña it ñu def ko nga xam ne moom kon daf daan wax góor ñi nañ dem jigéen ñi nañ dem ndaw ñi nañ dem noonu la ko daan defee sallallahu alayhi wa sallam waaw lu am solo la eh, waaye fi ne boo demee ci sunu penc mi tey li nekk ci korite ci wàllu folklore wàllu jàppe ko leneen wàllu jàppe ko ay toilette ak yu ni demee tax na ba feet gi ci boppam am na ñooñ nekk ca yooya di julli am na nekk ca yooya moo leen gënal dem di julli ji defaral alaaji laax mu lekk balaa dem waaw nga ne ca sa ngom xale ya waaw noppi na ci leneen noppi ne ci bale kër noppi ne ca marine ay salaat ak yu kenn xamut ba doo julli ji te feet gu ñu réyee feet gu ñu ko am lislaam donga ko am waaye seytaane dana fexe ba li li ci nekk ci wàllu ibaada ñu teg ko fële dugal ci aada bam far yàqu waaw danaa ci waxtaan nag incha allah lenn ci ay tomb ba jiitu ca tomb ya mooy sangu sopp nañ ko ca parfum wu sopp nañ ko ca sol yére yu rafet sopp nañ ko ca waaw yii daal sopp nañ ko ca lenn du ci farata nag ci yii ndax julli gi du farata kon yi ñu wax ni du ca nekk farata waaye daal sopp nañ ko sangu sangu bu la neexee raggu sopp nañ ko ca waaye parfon it sopp nañ ko ca sol yëre yu rafet sopp nañ ko ca jaafar ibnu muhammad moo jële ci baayam baayam jële ci maamam maanaam maami jaafar mu ne alayhi salaatu wasalaam bu korite masaana ñëw day sol burda dafa amoon benn manto def naa lañ koy wax fii bu mu daan sol waaw boo xam ne tey la korite gi moom lay sol ñun nag ñooy dem wuti lu bees bëgg solal sunuy soxna yu bees bëgg solal doom yi yu bees nga xam ne budget bi lu mu tuut tuut tuut du kël la million mbaa genn wàll million ñu ko amul sonn lool ba tàmmal nañ ko xale yi ba xale bu solut lu bees rek pour moom koritewut waaw la gone ya waxoon ndeysaan meer seen lekk mburoog ñeex ba noppi ne ko yaay dañ dul añ mu néew waaw waaye xale yi it jàpp nañ ne korite daal da war a sol yére yu bees waaw paa yi defe nañu war a sol yére yu bees jigéen ñi noonu sol ay dàll yu bees nangam nangam loolu budget boobu penc mi lim ciy def mënu ko amu ko waaw mu ngoog alxasan sëtu yonente ba la sallallahu alayhi moom xasan sëtu yonente ba la yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na alayhi salaatu salaam leen daan digal ci bisub korite ñu sol liñ gën a rafetle waaw ñu sol liñ gën a rafet la maanaam da ngay dem ci sa armoil nga seet sa yére bi gën a rafet gën a set nga sol ko liñ ciy bañ rek mooy nga nga bañ koo teg fen ni nag ba tax mécanicien baag électricien baag jaaykatu yàpp baag ñëpp taqaay wa yëpp ñu jëli jëkko lu nag la ñuy bañ sangul ba set sol ci sa yëre yi yëre yu set mu jax takk nga dem julli ji waaw alxasan nee na salaam moo leen daan digal ñu sol ñu sol yére biñ gën a rafetle xeeñoo parfum biñ gën a neexle waaw ngoog laal parfum góor ak jigéen parfon day lu xeeñ di dindi lu xasaw lu xeeñ la lool fu fekk lu xasaw dindi ko xasaw mooy xet gu neexut xeeñ mooy xet gu neex waaw ñoo su suñ menn maam ndeysaan maam sala sala lëy seet <laughs> maam sala lëy ni meloon ci parfum tabarkal la kenn mësu koo gis waaw yal na ko yàlla yërëm mu nga loolu rek la waaye nag bëgg lu bees bëggal ko xal yi bëggal ko seen pàpp bëggal ko seen yaay bëggal ko seen maam ku ci ne ñu bëggal ko ko yu bees bees yooyu mbokk yi mën naa dem ba budget bi euh, koom-koomu kër gi du ko àttan mu ñëw ci beneen tomb bi muy lekk bala ngaa julli ji korite ku xëy dangay lekk bala ngaa julli ji xanaa am xam naa imaam Ablaye Ndaw <laughs> moom dana sawar ci loolu ay ndeysaan xëy rek xam ne tey ku wóorut waaw <laughs> xam ne tey wóorut tubarkalla rek eh, ndab ya wër ko kaar kaar waaw imaam Abdoulaye Ndaw mu nga cën ndànd waaye korite balaa kenn génn kër gee dem ci jullikaay ga na lekk na lekk waaw xam naa bu fi bu ñu seex sekk jegoon ñu laaj ko lu ñu lekk yàlla <laughs> na ko yàlla yokki wér eh, bokk na ci lañ ca sunnaal lekk ci ay tàndarma bokk na ci liñ ci sunnaal nga lekk ci ay tàndarma soo fekkee am nga tàndarma bala ngaa dem ci barabu jullikaay ba ñépp yëg na tey wóoroo waaw nga lekk mu ngoog su ko defee eh, lekk googu mooy wane ne koor gi jeex na tey wóoroo waaw alayhi salaatu salaam nu la daan def moom mi ñuy roy da daan def balaa julli ji dafa lekk waaw bisub korite bokk na ca lañ ca bëgg ci bisub korite mooy dem ca barabu jullikaay ba dem ca barabu jullikaay ba waaw korite bëggoon nañu bu ñuy julli ñu dem ci benn barab bu yaatu ñu jullee fa foofu nag am na lool léeg-léeg mu xew te du xew ci jàkkay Oustaz Ahmed Dame mooy tëj jàkka ji jullee ci cour bi jàkka ji espace la bu yaatu ñu bari xaj ca ñu tëj ko jullee ci cour bi li tax ñu koy tëj di jullee ci cour bi danoo jàpp ni mbooloo mi du xaj ci jàkk ji loolu loolu tax ñu ne nañ ko jullee ci cour bi xaw ma nañ ko jullee ci ca àll ba laa bëgg a wax waaw euh, daaru ci buggale tey bu fekkoon <laughs> sama cinquante deux milliards ñëw na am na fa terrain yu ne ca suñu kanam yuy jaay bu ñu ko bu ñu ko jotoon nga xam ne mat na nangami hectare buñ ko jagalee ba mu nekk barabu jullikaay nga sonoriser ko nga xam ne jaxaay ma madina cubb ñàkkurab euh, dëkk yooyu yëpp mën nañ faa ñëw jullee ji fa waaw mu ngoog imaam maam góor njaay jiite leen yàlla <laughs> na ko yàlla yokk wér mu mu jiite leen xutbaal leen tabarkàlla fàttali leen waar leen ñu dellu loolu kenn mësu koo gis loolu lañ ci bëgg moo tax ñu naan ñu jullee ko ca àll ba waaye su fekkee ñun daaru ci bu la ñuy jullee ah dañuy dañuy jëfandikoo espace yu jàkk ji ba noppi door cee teg nag ya cee teg ci biti waaye boo tëjee jàkk ji espace boobu nga xam ne mënoon naa jël nangami téeméer loolu daal léeg-léeg mu mu xew ci nga mënoon a boole jàkk ja kuur bi nga tëj jàkk ja ne ca kuur ba nit ñi booxante ca kuur ba ak ñàkk fu ñu jullee ndax dañoo tëj jàkk ja jullee ci biir jàkk ji xaraamut déedéet si bu ko it waaw waaye génne ko ci bitti nag mooy li gën maanaam xaarijal balad loolu li gën su fekkee taw amut naaj wu metti amut alayhi salaatu wasalaam nu la daan def bu bu tabas bu bu ca masaana jot mu dem ca àll ba julli ko fa nee nañu jumaam ji ci biir ma Madina benn yoon la ko mës a jullee te bis boobu ab taw la woon an abi hurayrata annahum asaabahu matar fi yowmi iidin fa salla bihum nabiyu salaat al iidi fi l masjidi loolu abu hurayrata moo ko wax abu daawud nettali na ko ibnu maaja nettali na ko ak alxaakim waaw loolu la ustaas cheikh tànjaan jàngi woon wa fi sanad wa fi isnaadihi majhul waaw mu ngoog mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot ma ñëw ci beneen tomb muy jigéen ñeeg julli korite jigéen ñi ak julli korite julli korite yoonal nañ ci xale yi dem jigéen ñi dem waaw janq jeeg jeeg jee ci bokk yem nag min xayri tafriq baynal bikr wa thayib wa shab wa shaba wal ajus wal haid maanaam demum demum jigéen ñi ca barabu jullikaay ba jànq ji ak jeeg ji ñoo ci bokk yam waaw jànq ji ak jeeg ji ñoo ci bokk yam njegemaar yi ak màggal yi ñoo ci bokk yam ba ci jigéen ñi nga xam ne bis boobu dañoo gis póot ñoo ci bokk waaye jigéen ñi gis póot nag bu ñu demee duñ bokk ca julli ga déedéet dañ koy teewe te déglu xutba ba waaye gis nga ko xam naa soxna Kumba Jóob moom dana dem waaw incha allah dem Mbay sala yit ak ñoom Ndey Faatu Jëng ñooñu danañ dem ak mère Tappasi bi ak ñu baree bari ci ñoom am na ci ñooñ sax tabarkàlla ginnaaw bi ñu déggee waxtaan yu mel noonu la ñu tàmbali ñoom tam di dem nogay moom tàmbaleegu te dem waaw nogay moom tàmbaleegu te dem waaw xëy na mu dem <laughs> xëy na mu dem waaye tàmbaleegu te dem kenn mësu koo gis rek umu atiya moo nekk li mu ne yonente baa digal ñoom jeeg ji ñuy julli ji korite waaw mu digalaale it jànq ja ña toll ca gis baax même buñ gisee baax nañ ñëw waaw mu ngoog penc mi nag am na ñooñ dañoo xaw a euh, woyofal loolu te woyofal gi ëpp naa def woyofal gi ëpp naa def wala yastaqifannaka lazina laa noonu waaw sunu borom nee na bu la ko kenn woyofal bu jotee danga dem julli ji macha allah xale yi dem mag ñi dem góor ñi dem jigéen ñi dem ñëpp dem genn feet la gu rëy rëy rëy goo xam ne gi noo ko bokk te kat feeti àdduna yi léeg-léeg ngis ko xam ne kii day anniversaire képp nit ña fa noo xam ne kenn mën la koy wax waaw day anniversaire dong nag xew-xew yooyu ci àdduna nga woo say bokk woo say xarit ak say am di jàmm ñoom ñëpp ñoo fekk la ca loo tax parce que da ngay feet waaw korite moom waxe noppi waaw waxe noppi ma ñëw ci beneen tomb mooy yoon wi nga demee bu mu mbokk ak yoon wi nga ñibbisee bul def sa yenn calcul nag booy dem jullikaay bi daal jaaral yoon wi booy ñëw jaaral yoon wi lu sa kër jege-jege-jege na la jaaral wëri ndax loolooy dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp ne ah dañ ko def pour nangam loola bu mu la yitteel parce que calcul yooyu ahsaba anna la axlada chiffre d'affaires baaxut te mën la jural calcul yooyu mooy xam naa li yonent bi da ko doon def nàngam a taxoon waaw bu nàngam jooju taxoon def ko yow ndax nga am nàngam jooja kon sun na si mooy booy dem jaaral ci yoon wi boo ñibbi si jaaral ci yoon wale looloy sunna la ci yonent ba jublu nag alayhi salaatu salaam ah bu demee nu laaj ko ko waaw yàlla ñu gisee ak moom yomal xiyaam da di ko koy laaj mu wax ñu li ci nekk lépp lañ ca xam wax nu ko lañ ca xamut mu wax nu ko xataa bu fekkee dangaa yor oto war a jóge waagu ñaay julli ji fenn booy dem jaaral yoon wee booy dëpp jaaral yoon wi bu fekkee sa tànk nga yor booy dem jaaral yoon wi booy dëpp jaaral yoon wee waaw bu fekkee dangaa bokk ñi ñiy dem jël oto julli ji jumaa sàngam wala jàkk sàngam wala place sàngam booy dem jaaral ci yoon wi booy ñëw jaaral ci yoon wi mu xaalafu tariix daal dañ ko caa bëgg lool te mooy deme ci yoon ñëwee ci weneen yoon sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko daan defe nan ko jéem a defe noonu dundale ko sunnaam si te génn ci ay calcul xam naa li tax mu def ko mu ñëw ci beneen tomb mooy heure bi ñuy julli korite ban heure la ñuy julli korite mooy bu jant bi génne ba boo ko xoolee diggante jant beeg suuf mat ñetti mètre ci sab xool waaw fa la tàmbalee ba zawaal ba ba daanaka tusubaar jot mu ngoog noonu lañ koy defe mu tax ñun bu dee ñun fële ca Euh, daaru cubb yàlla nañ ci àggati weesu ko dañuy tëral ne fu neuf heures jot rek kàbbar nañ ñun la ñuy tëral fu neuf heures jot rek kàbbar nañ waaye duñ kàbbar te neuf heures demi allah ñu bàyyi ci xel ñuy julli si foofaak ñoo ko xaw a jege <laughs> waaw ndax lan li tax ñu aj ko noonu tuuti mooy nit ñi génne gutoon seen muddi koor mën koo génne waaw loolu moo tax ñu leen di may heure boobu dem ba neuf heures et demi nga xam ne ñu génne ko doon seen muddi koor mën nañ koo génne waaw tabarkàlla loolu mooy ban wan waxtu yeneen jàkk it mën nañu def nag heure boo xam ne xaw naa gën a suufi boobu am ñu def bu gën a yéeg boobu amul problème waaw jàkk ju ne mën nga jàpp man heure sàngam laay julli kenn heure sàngam laay julli amul heure fixe nag boo xam ne dañ naan heure bii la ci ñëpp war a julli waaw ku ci nekk daal euh, ni nga xam ne noonu nga ko yége nun ko koy defe julli korit ndax am na liqaam ak nodd déedéet julli korite amul liqaam amul noddu waaw amul liqaam amul noddu alayhi salaam ba ma sànn agsi ca barab ba rek ni allahu akbar waaw ni allahu akbar daal di noddu xawma duñu noddu duñu liqaam duñ fa def taxitul masjid bu fekkee nekkuñ ci biir jàkka ji ku ñëw dangay toog rek loolu tam borom xam-xam bi xëy na bu fekkee am na wuute it wuute ga bëriwut lool waaw wuute ga bëriwut lool loolu tomb bu ci am sa mbokk yi Euh, ci ci julli gi te mooy amul noddu amul liqaam amul dawal bu fekkee nekkuñ ci biir jàkk ji waaw korite am na kàbbara korite am na kàbbara waaw yoo xam ne juróom ñaari kàbbar la ca rakka bu njëkk ba juróomi kabbar ci rakkaab mujj bi bu ànd ak kàbbarub armal ba loolu am na ciy kàbbar ndax moom niñ koy jullee dafa gën a spécial ndax da ngay wàcc sa loxo kàbbaraat wàcce kàbbaraat wàcce kàbbaraat moom nun lañ koy defee ci julli gi waaw nun lañ koy defee ci julli gi waaw sunu penc nag lu ñuy def lu ne nga dégg ñu ne boo ko defee nangam am ca nangam boo fa jàngee nangam nangam rekk nga mu jàgg gis koo xam ne day kàbbar ci biir kàbbar yi mu bëgg faa dugal dara waaw bëgg faa dugal dara ko defee bu sunu borom rocc ko rek dootu fa am dara waaw mu ngoog lu am solo la mbokk yi julli gi mu ngi noonu e, ana ñan ñoo war a julli ji korite góor ñi jigéen ñi xale yi musaafiruuna yi ñi nga xam ne ñoo ne ci tukki waaw moo xam ca réew ma lañ dëkk moo xam dëkkuñu fa mbooloo lañu walla mëtuñu mbooloo ca kër ga wala ca jàkka ja wala ca barabu jullikaay ba ca àll ba nanu fexe rek ba jooxe julli googu ca nañu ko mane waaw nañu fexe rek ba jooxe julli googu ca nañ ko mane ba demee ca suñu mbokk yële nekk ci itali fexe nañ ba am fa ay centre yoo xam ne centre islamique lañ ko tudde ñoom tam léeg-léeg ñu daje fa man faa julli seen korite tabarakallahu man faa julli seen korite bu ñu yàlla baaxee nu dund ba ëllëg yàlla ñu dund ba ëllëg te weesu ko nu ñëw ci xutba beeg julli gi incha allah xutba beeg julli gi ndax soo seetloo xutba yi léegi macha allah actualité la nit ñi indi ndax rajo yi dañoo yokk télévision yi yokk réseaux sociaux yu yokk yokk googu nag tax na ba nit ñi léegi ñu ci bari ñu ngi yëg ne julli korite daa am message bu ci war di jàll xel yépp dañuy dem saa bu korite ñëwee ci message su sëriñ Abdul Ahad wala message su al Khalifa Hadj Abdul Aziz wala message su sunu imam bi nekkoon ci muusante euh, tam imam Tamsir Njuur ak yeneen imam nag dama siiti yooyu rek tabaarakallaahu jërë ngeen jëf yal yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen def jàmm ci réew mi ak réew yi yal yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara te suqali sunu sponsor yi in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu